yu nga ne ñoo nekk sa CENI ak vice président bu CENI ñoom nag nee ñu daal dafa bëri ay léexuur ak i tojaange yoo xam ne am na ci ni nga xam ne moom la élection yi doxee moo tax ñoom daal jàpp ñu ne Alpha Condé am na victoire si lu denee jàllo moom nee na hold up électoral moo am ci Guinée Conakry te loolu nag askan wi nga xam ne ñoo fi yeewoo ñoo ko war a bañal seen bopp dañoo war a jóg foqarte li nga xam ne maanaam mooy victoire bi yéen a kaay gi di enquête nee na benn réew ñaari président Sud Quotidien nee na si lu denee jàllo moom nee na yi dañu ko na askan wi ngir nag ñu bañ a bank seen loxo yéen a kaay gi di réew mi quotidien ñu fekk fa maître Abdoulaye Tine nee na résultat yi nga xam ne moo tukkee ci élection yi doon am ci Guinée maanaam dañu sa dugal ak loxoor ay njublang ak ndëngte lañ sa def yéen a kaay gi di réew mi quotidien di ñu xamal lan ñu Guinée Conakry jamono ji nag maanaam ma ngi ci giraawaali gu réy ndax ab grève total moo am ci Guinée Conakry gi yépp yéen a kaay gi di la turbine nee na Amnesty International daan nay def ay révélation yu doy waar a doy waar ci Guinée Conakry nee na ña nga xam ne moom lañ faray bëri genn xeetu bëri goo xam ne maanaam fu ko waaye natt daat na koy passé yéen kaay gii di réew mi quotidien ak les échos libération las sud quotidien di ñu xamal na ñu bëri na ay ndaw yoo xam ne ñoo ngi jël gaal gi di dem ba ci biir géej gi di dee ci géej gi yéen gii di réew mi quotidien nee na dafa am benn gaal boo xam ne dafa demoon ba ci waaxu mbuur yi daal di explosé tàkk waaye bëri na ci ay ndaw yoo xam ne ñàkk nañ ci seen bakkan am na ñuy wax ne lim bi toll na si ñaar fukki nit ñoo xam ne faatu nañ ci yéen gii di les échos xëy di yuuxu wàllu nee na ndaw ñi nga xam ne ñoo nekk ci Sénégal na ci ñoo xam ne ñoo ngi jël gaal gi di dee ci géej gi lii nag lenn warulu ko lu du lajjite gi nga xam ne nguur gi lajjite na ko ci lu jëm ci wàllum ndaw ñi fexe ñu am liggéey fexe ñu am xëy libération yéenekaay nee na barça wala barsàq maanaam réussir wala dee rek yéenekaay gi nee na am na benn gaal boo xam ne ñetti téeméeri nit moom la ñuy wax ne moom la defoon moo explosé ci waaxu mbuur yi yéenekaay gi nee na ñi nga xam ne ñoo si faatu nag jamono ji lim bi kenn mënu la ko wax am na ñuy wax ñaar fukki nit waaye nag jàpp nañ ne ëpp na ko loola enquête yéenekaay nee na bu ñu sukkandikoo nag ci yoo xam ne jëm na ci ñi nga xam ne ñoo yor wàllum kaaraange nee nañu lu toll ci cent quarante personnes mën nañu see ñàkk seen bakkana lu toll si juróom fukk ak benn la ñu sauvé yéene kaay gi nee na ñi nga xam ne ay nappkat la nekkoon ci biir ndox mi ak marine espagnole ñu ñoo leen sauvé waaye na jamono ji xel tey na lool ci lim bi nga xamante ni wax nañ ne ñoo si faatu ak ñi nga xam ne kenn gisu leen Sud Quotidien nee na ñaar fukki nit faatu nañ ci explosion bi nga xam ne am na benn gaal bu ko def libération yéene kaay nee na ëpp na loolu enquête yéene kaay ne ko mbir ci cent quarante personnes tribune yéene kaay en tout cas bëri na ñoo xam ne naax saay nañ ci géej gi kenn gisu leen am na si ñaar fukk ñoo xam ne faatu nañu Saint-Louis la ñu dëkk ci gox bii di Pikine observateur nee na Saint-Louis jamono ji ñi nga xam ne seeni mbokk dem nañ xamuñu dañoo dee xamuñu deewuñu te naax saay si géej gi ñoo ngi xaar waaye xaar bu méttee méttee réew mi ko di génne en tout cas jamono ji ñi nga xam ne ñooy faatu ci géej gi bëri na loola yéen kaay gi di Sud Quotidien nee na lu toll ci téeméer ak juróom fukk ñoo xam ne dañoo bëggoon a jël gaal gi ci Dakar ak Mbour ak Saint-Louis teg nañu leen loxo waaye nag li nga xam ne moo jaaxal askan wi ñi nga xam ne ñooy jël gaal gi ay mag a ngi si ay ndaw a ngi si ay xale ngi si ay góor a ngi si ay jigéen a ngi si yéen a kaay gii ñu fekk fa Serigne Mansour si Djamil moom nag àndul benn yoon ci njiitu réew mi di Macky Sall di def ñetteelu mandat ci bopp réewum Sénégal Tribune yéen a nee na Abdou Diouf mi nga xam ne ay jamono nekku na fi njiitu réewum Sénégal dànkaafu na Macky Sall ci lu jëm ci ñetteelu mandat bi Abdou Diouf naam am na ay at yu bari yoo xamante ni jiite na ko Sénégal waaye nee na bu démb doon tey du ko def ñaari mandat rek doy na Abdoulaye Mamadou Guissé mi nga xam ne moo jiite Omart lu yëkkul Ngoone Nduur ak Yuusu Nduur ak waa Sodaaf daf ko fàtte yekk na leen musiba ak mbelengaana ci lii quotidien nee na scandale bi nga xam ne moo am Sodaaf ak tojaanga yeek léexóor yi nga xam ne moom lañ njort ne moo fa am Yuusu Nduur moo nekk ca diggantal ba te nag li nga xam ne moo ci am sax ab conflit d'intérêt ndax Ngoone Nduur mi nga xam ne moo nekk njiitul Prince Art moo nekk président conseil d'administration bu Sodaaf te loolee conflit d'intérêt la te artistes yi nga xam ne ñoo nekk Prince Art ñooñu ñoo gën a gis seen bopp ci Sodaaf te loolee tegewul fenn ak lan moo tax bi nga xam ne jëm ci wàllum contrôle lan moo tax samp ñu ko fi nga xam ne maanaam mooy sodaaf loolee xel nanguwu ko ab société nan la ñu ko mën a sampee lu toll si ñeent at yoo xam ne amul benn contrôle Abdoulaye Mamadou Guissé daat nay ñaawlu bu baax a baax ndëngte yi nga xam ne moom njort na ne am na ci biir sodaaf observateur ñëw na ci ñàkku kaaraange gi nga xam ne ma ngi mel ni tulleeg màll ci réew mi nee na dafa am ay agresseurs yoo xam ne ci Kër saara lu ëpp fukki oto la agresseurs yi taxawal daal di nag wàcce mboolem ñi nga xam ne ñoo nekkoon di war a dem ñëpp ñu jël seen bagage yi nga xam ne yoroon nañu ko stade waaye dikk na ci rivalité bi nga xam ne moo am diggante Barcelona ak Real Madrid maanaam classico lu toll si téeméer ak juróom-ñett fukk ak benn ci ay match def nañu ko diggante Barça ak Real Madrid Real Madrid gagné na ko lu toll ci juróom-ñaar fukk ak ñeent Barça gagné ku lu toll si juróom-ñaar fukk ak ñaar Ramos mooy joueur bi ëpp lu mu football ci classico lu toll si 45 classico Ramos football na ko Lionel Messi moo si topp yéen kaay gi nee na Edouard Mendy mi dem Chelsea dalal na xelu waa Chelsea yéen kaay gi du sunu làmb mu ñu xamal